mbokki bi yi maa ngi leen di nuyu di leen korite di mag bu yàlla barkeel di yëkkati kàddu yi ci tur ak al aam li tariqatina al muridiya al sayx muhammad al muntaqa xafidahu llahu al qaadiru al muqtadir wa ayadahu wa nasar wa razaqahu wa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 nu gën a góorlu ci li taxoon yàlla bindu nu andi fii te mooy jaamu ko wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kon nan gën a sax ci def ay ndigalam ak moytu ay teree loolu kat la sëriñ Tuuba bëgg ci nun te moom la ñu sant ijmaalan wa tafsiila ndax mooy sababu ak mucc ëllëg te moom lanu ñu bëggal kon nan ci gëna a góorgóorlu te yar ci njaboot bi di leen ñu gën doy ko sëriñ bi ak liggéeyal sëriñ bi jaamoo ko yàlla gannaaw jaamu yàlla la ñu sëñ bi sant bu di jaamu yàlla day mel ne noo ngi koy liggéeyal gannaaw itam lu ñu liggéey loolu lu ne liggéey bu yàlla gërëm lay doon ak yonent bi sallallahu alayhi wa alihi ci ko xam kon liggéeyal ko jaamu yàlla lay doon yal nañu ko yàggal liggéeyal rek lay ñaan ci gannaaw sëriñ Muntaxa mi ak kilifa yoon yi yëpp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 فكثرة العلم بغير أدب جالبة إلى الأذى والتعب nan maa si xam ne àddina dëkkuwaay jaarukaay rekk la di tool yu ñuy liggéeyee rekk kon du këru fo du këru noppul nan teg suñ kanam waxe suñu borom ji te mooy wa qul i'malu fa sayara allahu amalakum wa rasuluhu wal muminuuna وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون yàlla may doomu aadama xam-xamu xàmmee jëf-jëf ju baax ak ju bon ak kàttanu tànn li ko ci neex mu def dana yërante bi neel nit ñi def leen lu leen soob lu ci waaye tànn def ko moo xam waaye ak lu man di xew yàlla nga gis seeni jëf daa iman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 fàttali na ko fan leen sax wax ne fa man yaamal mitqaala darratin xayran yara wa man yaamal mitqaala darratin charran yara dara lu toll ne la la gën ci liy tuut ci lu baax dana ko gis ku def lu tolloon ci saan bi dana ko gis te looloo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 إنه تعالى مولاي ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير وهو قريب وسميع وبصير وعلى كل شيء قدير وبالإجابة جدير دينتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته teg leen seen seen bagage. loo bëri. للنور واكف عنه كل من ظلم واجعله مسكنا